mooy comme ñu ci bare si ñun dañuy joxoon fan yi toog dañuy perte suñu temps ci waxu Adji Sarr adi Adji Sarr rek Adji saar diw wax na lii métrage wax na lii keneen koy wax na lii ainsi de te loolu amul benn njariñ parce que dossier Adji Sarr dossier la boo xam ne il est derrière nous te journalistes yi yàkkamtiwuñu dara dara intéressé wu leen lu dul kaay nga wax waxu Adji Sarr bu ngeen ko xoolee ba ci man Babacar Touré pratiquement télé yëpp. à part TFM lu mu ci topp kaay yi dañ la bëgg a invité dama ne finalement dootuma demati ci benn chaîne en dehors de Walfadjri émission balance bi nga xam ne consultant laa fa duma demati parce que loo xam ne amul njariñ loo xam ne c'est un non événement loolu lañu bëgg mu nekk par force événement mooy l'affaire Adji Sarr tax na depuis démb maa ngi euh, dégg appel yu bare maa ngi déggit ay daggitu morceau image yu ñu may envoyé di ma ne lan nga ci xam mooy d'abord coow li dox ci diggante xale bu jigéen bu ñàkk kilifa googu nga xam ne dafa noonu du ma mësa tudd turam te ba tey mësuma tudd turam bu toog di saaga ab ministre naan ko di ko di ko wax yenn kàddu yi nga xam ne bëgguma cee yegg mais euh, olof dafa ne ku jël euh, ku jël sa doom ne imaam nga yaa njëkk yaa njëkk julli ci gannaawam ils n'ont eu que le revers de la médaille parce que ñoom ñoo fekk nit ku tekkiwul dara nit koo xam ne dafa dem France dégg tubaab rek la mu mu ñibbi Sénégal amul dara lu mu jàpp muy taxawaalu ñu ne ko kaay ñu ñu organiser ñu ñu jàppale la pour ngay jàppale jigéen ñi ndey Saly Dieng sa coow laa ngoog li wolof naan eh, ku nekk xaw ma xaw ma nan la ñuy tojee bopp bopp bopp bopp jënam mais dama bëgg apporter juste quelques précisions mois de octobre deux mille dix deux mille vingt vingt et un laa waxoon ak sénégalais yi ma ni leen Adji Raby dafa tëb balcon. bi mu daanoo dafa jóg mu dem toog ci benn station essence ne leen dafa jël téléphone mu woo kenn ki nga xam ne moom la yaakaar parce que moo ko dugal ci lii yëpp mooy Sidi Ahmed Sidi Ahmed mbay Sidi Ahmed mbay newoon naa leen dafa sori mu daal di ko ne jëlal taxi boo ñëwee ma def arrivé payé bi mu defee arrivé payé mu yegg si Sidi Ahmed mbay mu ne ko noonu lañ ko jëlee yóbbu ko mais balaa ñu ko yóbbu hôpital Sidi Ahmed Mbaye xalaat kan la war a wax pour mu dimbale ko ci affaire Adji Sarr parce que amuloon fenn fu mu yóbbu Adji parce que Adji Sarr foofu mu nekkoon euh, kilim ba ko fa dugaloon euh, euh, borom 94 milliards Mamour Diallo keroog la Adji di rëcc Mamour Diallo tëb balcon rëcc à son contrôle bi Sidi Ahmed Mbaye jotee xale bu jigéen bi xamul fu mu ko yóbbu parce que ñëmewu ko. yóbbu ko kër baayam bi nga xam ne fa lañ ko hébergé muy liberté 6 extension kër Maodo Malick Mbaye li mu def mooy xalaat kan la war a wóolu fu mu nekk nii mu xalaat ni mosoon na tase si plage bu Saly Portudal waxoon naa leen ko ak xale bu jigéen bu ñàkk teggin googu ñu mute ak moom ci plage bi mu ne ko dama la gisoon benn jour nga toog ci plateau jàkkaarloo ngay défendre ne Adji Sarr Adji Sarr mu ah waaw mu ne ko man maay diw man maa yor Adji ñu échangé fa mu jëloon numéro téléphone bi si di amee mbay jotatee Adji Sarr ci mois de octobre xaw ma octobre 2021 bi xamul fu mu jëm ak moom la woo ku jigéen ki la ma leen waxoon daaw mu laa leen waxaat tey amul lenn loo xam ne dama koy inventé lakk Adji Sarr euh, Sidi Ahmed Mbaye woo ku jigéen ki ku jigéen ki ñu récupéré Adji Sarr yóbbu ko Mermoz ci këram ci benn apartement boo xam ne am na ko fa ci wetu rond point bi la ma leen waxoon démb bu ngeen delluwaat ci vidéo yi di ngeen fekk exactement keroog bi ma ko waxee seen gàngoor gi kooba yi retraité yi opportuniste yi utikatu xaalis yi dóorkatu marto yi ñëpp génnoon lu ne dégg naa ko waaw fan yooyu maa yoroon bës bi lu ne wax nañ ma ko tey jii dégg na euh, kooku Françoise euh, Hélène Gaye moom mun naa ko tudd parce que ak nu mu mënti demee dafa nite ma déggoon ko lu ñaaw lu ma yekkoon keroog da ko fàtte mu ànd si ak beneen ku jigéen ki euh, mati trois pommes ba ngeen dugatee ci internet bi lépp est traçable li mu wax du dëgg dem ba incité Maître El Hadji Diouf naan ko doo ko porter plainte man ce serait un honneur ñu porter ma plainte wala ñu jàpp ma ndax dama wax dëgg ragalu mu loolu tiituma ko xam nga laa ragal dafa sàcc dafa détourné wala dafa violé wala day dafay dañ ko fekk mu drogue drogue sax gisul yëpp mais su ma defoon sax loolu gisul ci parce dafa détourné violé yooyu laa ragal mun ne wax nañ ko fi mais tey ku jigéen kooku toogoon démb ne leen Babacar lu ne mu yekkal ma ko moo tourné tey encore mu ni leen Adji Raby Sarr li mu xamante xale bu jigéen bi xale bu jigéen bi naan tout le temps Adji Raby Sarr keroog mu noonu fëgg sama buntu te jël naa ko du dëgg noonu fëgg buntam Sidi Ahmed mbay moo ko dugal ci dossier bi moo ko yóbbul Adji Raby Sarr parce que amul woon fu ñu dugal Adji Raby Sarr loolu mooy dëgg moom mu jël ko ñu woo Antoine Diome parce que wax nañ leen rôle bi nga xam ne Antoine Diome mais si jabaram mu euh, Dior Diagne joué nañ ko ci affaire yi bi mu ko wooyee ñoom ñu xam ne lii opportunité la boobu la Adji Sarr rëccee ki nga xam ne mooy Mamour Diallo mu nekk léegi dans le camp de Antoine Diome et consort parce que dégg ngeen après interview bi nga xam ne jeune euh, RFI defoon na ko Jeune Afrique xaw ma ak Le Monde wax nañ leen ministre moo leen autorisé bu ngeen delloo ci li ma leen wax dara du leen dërëti ci yëf yi parce que man awma benn intérêt dama sonn sax ñuy toog ci cabaret yi di wax a wax a wax ci dossier yu mel noonu parce que pour man c' est dépassé mais tey dafa def polémique li ñu waxoon du dëgg tey démb moom lañ ne mooy dëgg tey moo tax ma ci delluwaat donc jigéen kii noonu la dugalee boppam ci yëfu Adji Sarr boole ci nag après un temps mu jéem a écarter Adji Sarr te lépp ñi nga xam ne ñoo doon ay relation am parce que li mu bëgg a mu ni association de famille bu ngeen delluwaatee sama vidéo bëri di ngeen comprendre la ne woon association de famille Adji Sarr ba mu amee problème mois de mars ñoom ñëpp dañu waaf tax na président Macky dafa leen mere léegi moom elle va se positionner comme jigéen bi nga xam ne mooy défendre yeneen jigéen ñi de sorte que dina accaparer ay financement dina suul. lépp loo xam ne association de défense de femmes te mu nekk Sénégal depuis jamono yi joor euh, joor comment on appelle euh, Ndioro Ndiaye de suite jamono yi ay jamonoy jamonoy jamono génération mën ñoo ñu mës def dara moom muy ñoo def dara parce que ñooñu lu ñu dawloon daawloon def moom loolu lay def dana saaga nit ñi dana xotti war may mag ñi boole ci ay détails yu bare bare bare donc on à ça léegi li nga xam ne waxuma leen ko woon démb moom ci boppam moo lañ ko wax dafa dem di fëgg ay buntu ay autorité pour ñu jàppale ko financièrement bu fekkee ne nga ne yow yaa yor Adji Sarr yow yaa mën a defal léeg-léeg li Adji Sarr looy demee di ñaan nit ñi looy demee ci ministre yi lañ naan jox leen ma jox leen ma jox leen ma ba Ndeye Saly Dieng da naan sama jëkkër am naa jëkkër am naa doom wala yu mel noonu je ne défends pas euh, Ndeye Saly Dieng su ñu nekku ci seen coow interne la parce que fekkee ne Ndeye Saly Dieng boobu ministre bu war a toogal jigéen ñi ak euh, ndaw ñi ak ñu néew doole cas yi bëri nañ fii yoo xam ne dugg ci loxoom naangu ci yëyu ci yàddiwu ci surtout cas bi may mi gën a indil mooy xale bu jigéen boobu ñu violé fële ca Màkka xale bu huit ans ab ponkal violé ko ma toog di xeex man kenn consul général bu senegal bu Jedda ànd ak ministère de affaires étrangères lu ne yekkal nañ ma ko fii dem sax ba activé ay journalistes naan Babacar il en fait trop ou ni mu mujjee Mohamed Abou Ndiaye indi nañ ko senegal mu jugé ko condamné ko à dix ans de prison mais fexe nañu ba kenn defu ko mandat d'arrêt bi ak ak appliqué wuñu ko mu ngi doxantu mu ngi daw fii donc bëggoon nañu gis Ndeye Saly mu taxawu xale boobu ak yaayam nga xam ne delloo si nañ leen jëlee leen màkk ak ñeenti doomam amul benn ressource mu ngi fii di débrouiller ak ay doomam Ndeye Saly Dieng kenn mësu ko dégg mu wax ci loola. kenn mësu koo dégg mu ngi recevoir sax njaboot googu même bu fekkente nañ ni peut-être ñooñu sollicité wuñu ko du ma jeexal ci loolu rek bu dee ministère la femme et la solidarité la wala boog ministère de la femme jigéen ñooñu nekkoon Touba dañu jàppoon seen jëkkër yi ñaari fukki jëkkër ak benn doon nañ xalaat non vingt six vingt six personnes ay góor doon nañ ci xalaat ministre la femme mu dem taxawu leen Toubacouta ni ma leen ko waxee woon bi ñu jëlee waa dëkk ba yëpp ay jigéen rek fa desoon di débrouiller pour dundal njaboot gi kenn mësul gis nday Saly Dieng mu wax ci fi may parce que exemple yi bari na noonu mais damay yem ci xale bi Michel Dieng Michel Dieng bi ñu rey fële euh, violé ko ba muy am doom la gaañu fële ca Oussouye Cap Skirring mësuñ ci dégg Ndeye sali Dieng wala boo kenn gisu ci action am fi may jeexale mooy lii sa tiin mi disparaître depuis de le 14 avril 2019 Ndeye Saly Dieng masuma gis fu mu recevoir parents wu Lissatine masuma gis fu mu jéemee lijjanti doom bi nga xam ne Lissatine bàyyi na ko mais comme bële dañu xalaat ni c'est un dossier d'état c'est un dossier qui les arrange ça empêche que un sénégalais bu bëgg a nekk président bu mën a nekk président nan ci jàpp toute la république s'est mise à genoux pour benn xale bu jigéen boo xam ne amul benn mérite benn mérite amu ko lu dul di fi nekk di saaga mag ñi loolu mooy mérite am boole ci nag euh, am na loo xam ne bëggoon naa sénégalais yi ko am na loo xam ne bëggoon naa sénégalais yi ñu gis ko. dëkk bi dañu toll foo xam ne dañu toll foo xam ne il faut ñu jël suñuy responsabilité il faut que ñu jël suñuy responsabilité ngeen xam ni euh, ñii dañu dañu décider nii dañuy fule au pied la règles de droit dañu fouler au pied li nga xam ne mooy dëgg li ñu bëgg mooy ala kulli xaal kenn mënul ci dara ñoom ku leen neex bokk ku la neexul doo bokk loolu moo tax bëgg nañu perteloo temps ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko naan ko kaay nga wax li kaay nga leeral lii kaay nga wax lii waxu kasaw kasaaw boo xam ne amul benn njariñ di lu tourné naan la kaay nga wax ci waxu Adji Sarr Ousmane sunko ngir yàlla bul am ñii seen jot waxu ajisaar jeex na dafa war dafa war a justifié wu dafa war a blanchir boppam ki blanchir mooy justice te justice boobu moo amul benn élément pour confronter ko amul benn élément pour opposer ko ko amul benn élément pour entre en voie de condamnation parce que lu amul dara ñu fexe ba am ca dara amul dossier affaire Adji Sarr li mu am mooy fenu aji Sarr loolu rek moo am ñi mu wax ni ñëpp ñooy seedeem amul kenn ku ñu conforté li mu wax ki nga xam ne mooy médecin bi mooy le docteur Ousseynou Gaye nee na viol gisuma ko ci xale bi wax naa leen ci ay vidéo fii tolof tolof yi nga xam ne moom la docteur nu Gaye si boppam euh, daj ay otom yu ñuy yu ñuy toj këram ainsi ak yenn détails yi wax naa leen ba wax leen à cause de Adji Sarr scandale u Adji Sarr complot Adji Sarr tax na ba problème amoon na ci diggante médecin yi ak seen hiérarchie ba tax na li nga xam ne mooy certificat médical médecin ya nekk CTO mënatuñu ko joxati il faut un comité bu réunir comité juridique pour joxe pour joxe euh, euh, certificat médical tey da ngay ñëw nga def sa affaire ñu jël rapport bi jox ko comité bi comité bi réunion ñu xool ndax kii war nañu ko jox certificat médical ou pas ak ñaata jour lañu koy jox dara teguñu ko dul xale bu teg bu tekkiwul dara boobu moo ñu ko teg euh, donc Ousmane Sonko c'est tout à normal mu dem wuyu ji ñu auditionné ko parce que ñëpp ñoo xam ne tudd nañ leen ci ñëpp ñoo xam ne xalaat nañ ni war nañ cee xam dara woo nañ leen laaj na élément en fait man dama am lu may yéem ci Sénégal quoi parce que en matière d' enquête dama leen koy wax dama leen koy répété waat benn doomi aadama mënul dindi li may wax audition la ak constatation dañuy commencé d' abord par audition audition mooy man maa am lu ma naqari lii la ñu ma def ma ñëw nga wax ko policier policier mu déglu la mais dès les auditions xam nañ ni Adji Sarr li muy wax yenwul maanaa enquêteurs yi conclure yi y' a trop de contradiction dans ce que Adji Sarr malgré tout ñu dem ci constatation yi bu ñu demulee ci constatation li lieux présumés de la commission des crimes mooy fi yi fi amee dem def nañu li nga xam ne mooy les constatations euh, gynécologiques et les constatations anatomique bu Adji Sarr wóor na ni dara amu ca ñu déglu témoins yi témoins yi ñëpp dem contre waxi Adji Sarr léegi Ousmane Sonko bu ñu koy jugé ci lan lañ koy jugé ci kaw lan li Adji wax jeex boobu léegi taxaw na ñu naan leen am nañu ay vidéo par la même maa ngi nuyaale temps temps genre xam ma fu mu nekk ñu recruter ay ay ay ay mercenaires ñuy saaga gor ñi rek ah temps temps genre boobu laa ko gëj a dégg boobu laa gëj a gis léegi am na ñu ñaan ak ñeneen mais kenn moo leen dese koo xam ne lu mu wax suba ba ngoon boo ko xoolee dara du ci dëkk parce que ñoom li ñuy def dañ leen di fay pour nuy saaga nit ñi dañuy leen di fay. pour ñuy xas nit ñi dañ leen di fay pour ñuy diffamer nit ñi te mënoo leen yóbbu police wala tribunal parce que boo leen yóbbu ñu classé dossier bi loolu moo ci nekk c'est ça la vérité léegi amuñu dara lu ñu opposé Ousmane Sonko Ousmane Sonko citoyen sénégalais la mu neex xaw ma damay bokk élection présidentielle comme ni ko euh, comment il s'appelle ni ko Déthié Fall mën a présenté wu comme ni ko euh, Farba Senghor mën a présenté wu comme ni Macky la mën a présenté wu keneen ak keneen ak keneen libre à lui de se présenter jusqu'à ce que muy mu am condamnation boo ko empêché y a rien qui l'empêche de déclarer sa candidature léegi nag face à Ousmane Sonko lan lañ ñuy opposé Farba Ngom lan la ñuy opposé Abdoulaye Sow Farba Ngom lan la dans une république ci sa respecte pays boo xam ne ay ay ay scientifique ñoo fi nekk ay juriste ñoo fi nekk ay nit ñu am xam-xam la ñoo fi nekk ay nit ñoo xam ne am nañu probité morale ay nit ñoo xam ne kenn mënu leen dugal ci ci wuruj ci njuut njaaj ci détournement kenn mësu leen dugal ci lu lëndëm ñooñu pour ñooñu seen vie c'est 17 million de sénégalais. amuñu kenn ku dul Farba Ngom ñu war a wax la conduite à tenir parce que tout simplement c' est l'ami du président on est dans quel pays ban mérite la am kon mu mun ñu wax ñu éclairer mu ñuy wax respect de la justice alors que Farba boobu bu ngeen ñu fàttali waxoon naa leen fii ci deux mille euh, deux mille dix neuf deux mille vingt ki nga xam ne mooy adjoint direct adjoint am direct su lay bax sëtam dafa rey benn xale bu tudd Abdoul Fam jam ko paaka rey ko xale bi mësuñu ko buñ ko yóbbee ci garde à mat laa matelas lañ ko yóbbul ak sa ak sànke ak ventilo ca garde à vue bi ca gendarmerie mësuñu teg xale bi ci kaso bi ñu rawale ko justice moo war a tegu foofu la war a njëkk tegu ci xale un un un euh, kid killer li américain di wax kid killer un enfant tueur ci ñoom la jóge kenn waxu ci dara fat bakkan laa wax de waxuma accusation yu farfelu yu viol sans compter nag yeneen détails yi ay huit 800 millions ki cent million ki ay millions yi ca aéroport ba mais ak yeneen yoo xam ne benn journaliste waxu gu ko qu'est-ce que nous oppose rien ay saaga ay saagakat yu ñu recruté saagakat yi àndoon dimb tey ñu nekk di reyante dama nga waxoon Adji Sarr dafa tëb jigéen ki génn na saaga ne du dëgg Maher Babacar Touré tudd ma ma suma hébergé Adji Sarr quelque temps après waaw Adji Sarr bu mu fëggee suma buntu maa ko keneen ki tourné tey ne Babacar li nga wax du dëgg Adji Sarr xale bu ndaw yow paa bi ngay fen rek ci Adji Sarr tey tourné tourné après keroog naan dëgg la Adji Sarr dafa tëboon balcon alors que da nga ne woon Adji Sarr mosul tëb balcon Babacar li mu wax dara du dëgg c'est-à-dire ñun luñ leen wax li ci neex mooy sant yàlla yàgg yàgg yàgg yàgg bi ngeen gis ni liñ leen waxoon dara du ci dara du ci dañ donc rien me s'oppose à ce que ki nga xam ne mooy Ousmane ko mu annoncé candidature à la présidence de la République maintenant juge d'instruction il est dans son droit mu woo ko mu auditionné ko mu rendre li nga xam ne mooy ordonnance de renvoi ou une ordonnance de non mu jeex takk te li ñu gëm buñ ko baasee ci droit buñ ko baasee ci dëgg dara mënu fii am lu dul non lieu parce que lu dara amut zéro plus zéro égale zéro dara moo fa amut déggoon ngeen li ñu am li ñu yor am nañu ay vidéo am nañu ay truc ba tey dara suñ ko génn parce que duñ ko génne li ci nekk mooy ay photo montage yi ay yu affaire yu kat capan yi la ñu def rek foofu la ñu la ñu toll tax la présidentielle 2022 bi ñu jëm amul dara li mën a tere Ousmane Sonko mu bokk amul dara léegi nag ñu nekk en face li injuste loolu la Ousmane Sonko di wax ni injuste boo gisee ñu koy muy dal sa kaw morom jógal nga jàppale sa morom parce que boo nee si bien fait pour lui suba yow sa kaw lay dal. parce que am ngeen kayit wala amoo leen kayit ñu dañ leen di delloo Sénégal wax leen ni su ngeen ñu delloo Sénégal suñu àq ak suñu yelleef kenn du ko respecté le cas François Mancabou ngi nii benn citoyen sénégalais bu deful dara ñu jàpp ko këram yóbbu ko police ñu torturé ko fa ba keroog mu ci bakkanam di ci des won leen ni y' a pas de comment on appelle à l' de police torture am na fi wax leen ko. bindi leen ko donc kenn du leen delloo ci Sénégal parce que bu ñu xamee ni kaw François Mancabou moo ngi fii kenn réglé wu ko wax leen ni police ak i gendarmerie dañ lay ex extorquer aveu dañ lay dañ lay dañ lay dañ lay wax looloo waxut dañ lay signéloo këyit boo signéwul boo boo nag dañ lay signéloo loo waxut buñ leen buñ leen weddee ngeen wax leen la xew fële ca boo fa bayot vingt huit pers vingt six personnes yu ñu jàpp dugal leen ci kaso bi wax lu ñu waxul tëj leen kaso ñeenti at ñu bàyyi leen wax leen ko tubaab yi ñun ñun ñu ngi fii ñu ngi Sénégal ñun ñooy saraxu Sénégal du ñu daw du ñu day du ñu bouger lu ñuy wax dana ko wax ba keroog yàlla décider lu mu ñuy def. bëri na ñu may woo naan ma wooy génn réew mi tuuti il man c'est terminé réew mi fi laa juddoo réew mi fi laa bëgg a deewee moo xam yàllaa may rey moo xam waa kër ñàkk jàmm may rey amul ma benn njariñ li ma amal njariñ mooy ñibbisi naa du ma fi jógewaat c'est fini c'est terminé léegi nag convention d'extradition yooyu da ngeen koy utiliser contre ñoom am na ñoo xam ne nag contrat convention yi bëgg nañ ñu appliquer leen. mooy genre ñu njuut njaaj ñu sàcc alalu réew mi daw dem toggi France ak ñoom seen wala rey nit dem toggi bitim réew ñooñu d'accord nañu mais gis nañ ni saaga sax du saaga président sax loolu du délit parce que gis nañu ka dàqoon saaga tey euh, photo na ak président def na vidéo ak président président bañ na accordé interview ay sénégale mais saagakat bu gën a mag bi. jox na ko ko na ko lépp donc saaga dootul lu ñuy bañ ci réew mi ma malgré que man duma ko def te bugguma sama doom def ko te conseiller ma koo xam ne sopp nga ma wala sopp naa la nga di ko def parce que man du ma déglu saaga euh, mbokk yi loolu mooy point yi nga xam ne bëgg naa ko échangé ak yéen voilà fii dañ taxaw na Sonko wuy ji na wuy ji na wuy ji yooyu ay waxi tàppale la ay perte la parce que ñoom lii yëpp théâtre la si ñoom lii yëpp foo ci ñoom ñun foowuñu fooluwuñu ñun ñàkk nañu lu mat pratiquement ñaar fukki nit ñu dee leen ñu rey leen comme ay ginaar waaye dégg ngeen kenn ci géwélu président Macky Sall mooy Khadim Samb nee ab président bu baax dafa war a reyee dafa war a tëj ci kaso bi dégg naa ko keroog yaa Awa Diagne tamit mu nekk ci benn émission mu ni ñi woote mortal combat moo tax ñoom rek kay dee waaw nee na bi comme ñoom ñooy woote mortal komba ñoom rek kay dee te li ñuy fàtte mooy ay doomi Sénégal ay citoyens yu libre ñoom seeni dee ñoom loolu la ñuy rafetlu loolu la ñuy kontaan noonu loolu la ñuy encouragé tax na ba àdduna du tukki sénégalais yi ñu fàttaliku ni bi dëkk bi jaxasoo ab géwél la dañ ko doon xamee bu dëkk bi jaxasoo mu fexe ba indi jàmm tàppe xol yi waaye dégg nañu ku tudd Xaadim Samb nee na ab président dafa war a rey ab président dafa war a dugal nit ñi ci kaso bi lii di rey lii di ci kaso bi lépp nee na ab président daf ko war a def moom loolu la bëgg loolu muy gis-gisam ci réew moo xam ne ay maamam fi lañ nekk ay sëtam bëgg na ñu nekk fii te moom bëgg na suba mu dëkk ci réew mi mais bàyyi leen ci xel te fépp fu ngeen dem ci àddina bi surtout ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew confronté seet leen déclaration yooyu c'est des proches du président ñoom ñoo ko def bu leen tubaab yi jàppee ne dañ leen di delloo Sénégal ngeen leen mënuñu dem Sénégal parce que Sénégal àq ak yelleefu doomi aadama respecté wuñu ko parce que policiers yi dañ lay torturer parce que policiers yi dañ lay bind loo xam ne yow waxuloo ko parce que policiers yi ak service de renseignement yi dañuy inventé ay góor yu set wecc Ami Diop Nadine Tat Badiane Nadine luñ ko toppee mooy yónnee na nit xaalis weev ñu jàpp ko ne terrorisme la terroriste la wax leen fépp fu ngeen manti nekk ci àddina bi ne leen mënoo leen ñu delloo Sénégal parce que foofu dañuy jàpp nit fekk ko këram deful dara ñu soupçonné ko simplement ñu yóbbu ko far mu jaaree fa dee bu ñu leen weddee ngeen génnee leen le cas François Mancabou ngeen ne leen Sénégal nit dafay toog jàpp njàmburam deful dara ñu inventé gendarmerie police ñu inventé jàpp la yóbbu la ci kaso yi ñu tëral la fa lu mat ay ñeenti at buñ leen weddee wax leen la xewoon te Toubacouta ci affaire boo fa bayoot ngeen wax leen ni ñu jegee président de la république lu leen neex la ñuy def te dara lu ci génn te ku contesté président de la république ñu fexe ba duggal la ci kaso bi ngeen ne leen sax reetaan sax dañ koy tere Sénégal wax leen ko ne leen ñun mënuñu mënoo leen ñu delloo fa parce que reetaan sax dañ ko tere bu leen weddee ngeen wax leen Ousmane Diagne benn benn benn benn une benn une bu ñu parodier la ñu dugal ko ci kaso bi di ko yóbbu instruction wax leen ni Ousmane Diagne nit ku baax la nit ku yaru la du sàcc du du luubal du wuruj parce que simplement foog na ni nu ñu ré yore réew mi neexu ko loolu rek lay wax moo tax ñu dugal ko ci kaso bi ngeen leen ku dugg ku tudd Papito defut dara lu dul dafa liir benn ci journal bi mu wax ko loolu lañ ko jàppee dugal ko ci kaso bi wax leen loolu fépp fu ñu leen jàpp ñi dañu leen di delloo Sénégal boo ko defee kenn du leen delloo fii parce que da ngeen di dugg ci cadre convention de Genève de juillet 1951 les conventions sont au-dessus des lois nationales képp ku signé convention boobu képp ku ratifié convention boobu même bu fekkee ne da nga ne dafa am loo signé ak président am diw la nga signé ak président dañ koy teg fële convention bi la ñuy appliqué su ma leen ko doon expliquer mu mu mu gën a leer dafa mel ni loi wu Sénégal loi wu CEDEAO moo tegu ci kawam loi wu CEDEAO loi wu Nations Unies moo tegu ci kawam noonu la deme moo tax Europe loo xam ne loi nationale réglé wu ko dañuy dem ci la cour européenne des droits de l'homme mooy tranché. ba keroog ñuy kon ñuy dem ci euh, euh, groupe de travail des Nations Unies ak yu mel noonu mais yéen seen problème réglé wu na li nga xam ne euh, convention la bu Macron booy Macron signé ak président Macky Sall seen problème la ñoom ñaar concerné wu leen bu kenn xalaat ni dana tax ñu jàpp la dugal la ci avion bi delloo la c'est faux c'est archi faux bu ñu mënoon delloo ki ñuy njëkk delloo. mooy euh, Mamadou Nkrumah sànne moom la ñuy delloo si parce que kooku au moins il y a suffisamment d'éléments contre lui yu ñu ko mën a toppee te it ñu ñuy waxoo justice waxoon naa leen fii temps yële kaaw euh, César Atoute Badiate condamné par coutumance au tra comment on appelle à une peine de prison à perpétuité ci ëllëg si gis ngeen Macky Sall yónnee na ko délégation ñu dem toog ak moom signé nax senegal yi ne leen léegi accord de paix am na alors que Mamadou euh, comment on appelle César Atoute Badiate léegi di géré lu dul boppam. Euh, wax jàngoog xale bu jigéen bee di agité wu dafa créer mouvement am bi ñu ko dàqee France mu ñëw. dafa créer bu mu dawee France parce que dafa këf xale jëkkër ji yaa topp porte na plainte moom bu jël mukk avion dem France parce que bu demee ci France ci kaso bi lañ koy dugal mu ñëw mu ne fii dafa bëri ay naxa-naxa fii dafa bëri ay ñoo xam ne ay télénovelas rek la ñuy seetaan comme man mun naa choco choco quelques mots mots français dinaa ñëw ko gars yi teg ma ci plateau yi bu ko defee may saaga seen gor ñi may saaga seeni maam may saaga seeni i aada may saaga seeni i ñoom booy plus ngay saaga seen diine ak yooyu ñu yëkkati la mu ñëw man nag danaa jaay affaire nan di tëj kenn ki moom jàppale aji saar tax na ñu jàppale ko mu tabax këram mu jeex kenn ki moom nee na ministère bu nekk dafa la war a fëgg comme ni gars yi doon def rek dem ne man maa jàppale il faut ngeen jàppale président boo defee ministère yi di yëkkati ay subvention di ko ko jox après mooy taxaw mu ne man maay défendre famille man maay défendre aji saar maay défendre lii maay lii mais la ma leen waxoon ci démb bu ngeen seetee vidéo ya ma def ca Adji saar lu leen jaaxal tey seet leen ko ca vidéo yi waaw parce que kër ga nga xam ne fa la yëf yi amee ñoom transformé nañu lépp alors que juge d'instruction pour que liggéeyam mat wax naa leen i faut mu dellu sur le lieu présumé de la commission des crimes ñu def lu ñuy wax reconstitution reconstitution kenn ku ne fan nga nekkoon keroog lan nga def ak lan nga defut mais loolu lépp du ci am parce que kër googu génne nañ fa Ndeye Khady changé nañu kër gi toj nañu kër gi ñu ngi def leneen mbokk yi euh, li mooy li ma bëggoon waxtaan ak yéen lu gàtt laa warut wax ni candidat la yooyu ay waxi caaxaan la amul lenn lu mën a tere Ousmane Sonko mu nekk candidat comme dara mënut a tere Déthié Fall ak keneen ak keneen nekk candidat